aca grand combat baa ngi noonu dox ci diggante Serigne Ndiaye 2 Fass Cobra Pikine Mbolo Serigne Ndiaye 2 moo ndi joor ngemboo ngemb lu vert li yaakaar yu kirouge arbitre bi sifflé na mbokk yi daan na Cobra Serigne Ndiaye doo bu Fass daan na Cobra daan na Cobra Serigne Ndiaye doo daan na ko oh, combat bi dafa gaaw Cobra daanu ko jël bu la bett Cobra na jël bu ko mu ngi jooy Adama Serigne Ndiaye ngi jooy Serigne Ndiaye ngay jooy ndeysaan ma ngay mu ngi jooy ndeysaan mu ngi jooy Serigne Ndiaye ngi jooy mu ngi jooy mu mu ngi jooy ndeysaan mu ngi jooy Adama ma ngay am ndam ba pare di jooy nag ñàkkul am na lu xew mu ngi jooy moom Serigne Ndiaye dee bu faas ma ngay jooy ndeysaan ma ngay jooy ndeysaan kaay Adama kaay Kabadooki nuyu naa la xanaa tey di nga wax mosuma laa jël nga wax xanaa di wax kii du wax tey di wax waxal nañ ko. na tàkk. wax. kaba gi noonu ndeysaan. moo indi Serigne Ndiaye bu faas. mbokk yi ñu leen bu baax. di wax ni lamba ngi noonu. Serigne Ndiaye tey bëre na ak Cobra daan ko jël bu amul benn warante. mbokk yi di leen leen ci defal jàngat. waaye da ngeen di dem suba incha allah rabbi ci wasaare lamb ngeen tàppe ba jàngat lamb bàyyi jili dina leen ci waxal ci ñu gis ci lamb ji gis nañ beneen Serigne Ndiaye doyo gis nañ keneen ku mën indiwaat beneen relève ci Fass waaye Cobra démérité woo da ngaa perte repère c'est normal da ngaa gëj a bëre depuis sa combat yaa ba léegi bëre woo c'est normal bëre nga ak Serigne Ndiaye def nga erreur ci combat bi mu daal la ñu ngi lay di féliciter Serigne Ndiaye de mbokk yi di leen jox dig daje ba ëllëg incha allah ci beneen xew-xewu la am jërë ngeen jëf.